Euh, question ci mbiru président de la République boobu euh, moom dafa ne euh, li des fii ba élection ba lépp luy warugaram lépp luy prérogative am lépp luy responsabilité am devant la nation dina ko def ba matal ko ban compréhension nga am ci ci wax boobu ci côté institutionnel ak fonctionnement état tamit ci côté politique mais là ku xam président Macky xam noonu lay doxale c'est un homme qui travaille sans arrêt c'est un homme koo xam ne dafa bëgg réew mi et loolu ça se sent tous les tous tous les jours euh, d'ailleurs son serment c'est de préserver l'intégrité am na euh, une formule euh, consacrée mais moom serment bi nga xam ne daf ko jël waat ko en 2019 mais président Macky Sall du ci wàcc benn ponk moo tax ci fi ñu toll nii il on travaille vraiment euh, en tout cas euh, gouvernement baa ngi liggéey bu baax a baax donte euh, coow li am na et de ce point de vue je suis d'accord avec lui et personnellement je suis intransigeant en tant que chef de gouvernement non loolu laa gëm en tant que État on doit travailler avec lui jusqu'au bout jusqu'au bout la nga xam ni bëgg na ko la nga xam ni mi ngi koy laaj la nga xam ni soxla na ko dañ koy def et je pense d'ailleurs en termes de loyauté situation bi ñu nekk nii ci la ku nekk war a wone engagement envers le président de la République parce que engagement waroo ko jël bu nekkee tu as une perspective longue nga xam ni eh, fii euh, trois ans ou quatre ans yaa ngeek euh, nit ki nga ne donc nii lay doxalee parce que bu ma ko defulee lii def ma ciy fekk quand tu es au service de l'État quand tu es au service de la République da nga war a liggéey jusqu'au dernier jour jusqu'au dernier jour et sans relâche sans état d'âme et froidement et administration bi noonu la war a doxee. alors il n'est pas candidat di nga garder le même type d'engagement il aurait été candidat est-ce que vous l'auriez accompagné soutenu. mais je je je vous dis peut-être une chose am na loo xam ne peut-être boo koy. et pourquoi euh, am na loo xam ne boo donc d'abord man dañu ma tàggat ci administration balaa ñuy waxi politique administration c'est d'abord la loyauté. man tout moi toutes les responsabilités que j'ai eues li ci ëpp bi ma ko amee amoon engagement politique donc loolu ko mën a may compétence la ak loyauté pas autre chose moo am ci administration maintenant engagement politique bi ñëw na kooku dinaa ci ñëwaat euh, léegi la nga xam ne dañ la mooñaaleeg moom loolu du daj man en tout cas en ce qui me concerne et personnellement euh, na ma doon liggéeyee démb ak barki démb na ma doon comporté woo démb ak barki démb réserve bi mu amoon démb ak barki démb tey lay gën a am tey bi nga xam ni je suis que le président ne sera pas euh, ne sera plus président à partir du du du du du 2 avril. c'est ça la loyauté c'est ça l'engagement c'est le respect loolu moom mooy éthique bi nga xam ne dafa war a habiter tout fonctionnaire bokk na tax ma ñëw fii. Et c'est extrêmement important. Parce que souvent, quand on est à la veille euh, de, de, d'échéance politique, nit ñi en général dañuy jël liggéey bi teg ko fële nekk ci politique rek di wax di xuloo di di werante fàtte l'essentiel. Le président a pris un serment, il a mis en place un gouvernement et le gouvernement doit travailler jusqu'au bout et inch'Allah ci loolu la ñuy euh, la ñuy nekk en tout cas en tant que chef du gouvernement si j'ai continue, si je continue de bénéficier de sa confiance, je travaille jusqu'au dernier jour, sans état d'âme et